jigéen la waxu jigéen la sa jëkkër a gën a ñi ma yow ko jigéen la yow a ñi kii jigéen la eh, kii eh, de góor bu ma ko waxaatee lii góor la lii eh, bu ma ko waxaatee ah, nañu iñaan nañu xaalis bi ma la wax sa ne la ak ëpp na trois cent mille nga ne ko deux millions la daf nu wax nu la wéy nga feneen la ba ma tooy xet sosal ma nga ñëw bii mel ni du yow wejjax sa bët yi ah xanaa ñaawati kay. man wax dëgg yàlla ku ma xam-xam na ci waxi dëgg. <laughs> man maa ne Kaaw mami ci boppam moo tax jas jas expliqué ko li nga ma waxoon fii laa ko wax dindiw ma ci virgule yokk ma ci point. kii bi ngi ma wax xam nga nu mu tënk si yàlla fi ba ah, man may ñu défendre la may taxaw di jël sax mooy. ma mën fépp la mbay man lu ma wax dara nekku si cas boo ñu dem ba nga mu génn ñu dem kon ko ñuy wax noonu la lay noté muy lii couple la c'est-à-dire maasa yooyu mel ni mel ni mel ni perong ci lii couple la gis nga chaque jour man la bàyyi yow yow yow ma gàcce gu ma am si yow la mami bàyyi ñi ko duma leen bàyyi kër gi kër gi dañ koo xaaj ku ne sa territoire fii laa moom yem fa looy def fii. amour loolu jeex na tey geer gi maa la koy geeral. amat amour amat amour sa jur amour amour amour lan mooy amour.